yëg-yëg ba nga xam ni mooy bi jullit di yëg rek ndaxte lu mel ni bu dalee ci ay ndaw euh, naqar métit ak tiis kese la ñuy wax ni ñuy def rek li yàlla santaane ci li saa yu xewee mooy delloo suñu bopp ci yàlla euh, te xam ni yàlla am na ku ko wax sànq nee na du buur mais mooy borom te borom bu soxlaa jël na te jël na dañuy wéy rekk di dolli sant sunu boroom tey ñaan sunu ñetti jarbaat yi yàlla teru leen ak njëgal ak yërmande yàlla xare leen aljana di ko jaale seeni wayjur di ko jaale presse bi te di leen gërëm it ci taxawaay bi parce que ci ni ngeen di liggéeyee lii xew na mais yéen a ngi wéyal liggéey bi def ko tey ci anam yoo xam ni euh, wan ngeen ni seen dëcc la mais jàpp leen ni yéen ak Sénégal yëpp ko bokk te bi mu xewee it euh, li nga xam ni mooy cëru état que ñun ñu ngi woon ci zone bi euh, président de la république def na li nga xam ni moom lañ doon xaar ci moom mais li ci ëpp solo. jàpp naa ni mooy tegtal yi mu joxe pour que assistance bi war a am ci ñi nga xam ne dañu am ay gaañu gaañu bu ci dara manqué te mu suivral ko boppam nag minute par minute beneen bi ci topp mu ñëw ci yoonam mu taxaw fi mbir mi xewe massawu xool daal joxe direction ak décision ne ña nekk Kédougou nañu jël matuwaay yi pour ñu wàccee ay kaamil kooku ñu ngi gërëm imaam yi nekk Kédougou parce que ci bi ñu jotee ndigal li rek dajale nañu xale yi nekk ci daara yi ñu jàng alxuraan bu sell te bi ñu koy tëj dañu ñëw fekk président egsi ñu tëj ko mu ñaan it mbokki Kédougou comme fa la jëmoon te ñun ñëpp fa la ñu jëmoon waaye yàlla dogal na xale yi yegguñu ña doon xaar mu ne leen dinaa yegg si waane maa ngi leen di ñaan lépp luy xumbute lépp luy folklore ngeen teg ko ci suuf te mbir mi noonu la demee tey nag waaw monsieur le ministre defe naa tamit loolu am na solo lool waaye li ñu gën a xaar defe naa mooy euh, euh, contrôle bi ñu war a mën a yokk gën ñoŋal li nga xamante ni moom moo di euh, contrôle bi au niveau des routes defe naa loolu tamit ñi ciy xaar euh, à chaque fois ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite ngir mën a renforcer defe naa loolu it jafe-jafe la boo xamante waaw xam nga xam nga dafa am ñaar euh, bëgguma dugg ci ci loolu parce que loolu ay wax la yoo xam ne du dajale parce que ku nekk da ci am gis-gis mais oui oui mais je reviendrai li nga xam ni mooy mbiru tali yi da ngay jàpp ñaar rek pour xool la ñu doxi woon moo doon ubbi ay hôpital mooy ay bërëb yoo xam ne dañu fay dimbali nii ñi ñu gën a wéy ci dund ñoo ñooñu dem di couvrir lu mel noonu seen bakken des fa la ñu yóbbu woon moo di ubbi ay tali yoo xam ne defar nañ leen ba mu baax du dëgg li ñu war a wax kay mooy naka lañuy fexe ba am réflexion bu baax boo xam ne yenn xew-xew yi au lieu ñuy bare ci tali bi ñu mutualiser moyens yi pour jéem a indi encore ay points de renforcement de la sécurité yooyu la ñu war a wax parce que tali mën naa baax mais mën naa jël bakken tali mën naa bon mais mën naa soyo bakken li gën nag mooy tali bu baax